ah mbay Niang sauvé na club am club bu waroon wàcc deuxième division grâce à un but mbay Mbaye Niang club boobu dootul wàcc deuxième division oh sunu sénégalais bi actuellement Italie moom rek la ñuy waxtaanee. waaye Ligue 1 sénégalais salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant avant tout may laaj ci commentaire yi est ce que pare ngeen pour gisaat Mbaye Niang équipe nationale ou ngeen bindal ma ko ci commentaire yi ñu waxtaanee ko mais en tout cas balaa maa ñëw ci Ligue 1 sénégalaise TFC mi champion euh, doon champion euh, loolee di Sénégal mbay Niang mën naa ni tey Empoli ak kooki di AS Rome doon doon football ñu nul un bi partout ba des quelques minutes quatre-vingt-treizième minute temps additionnel benn action boo xam ne nii <laughs> placement bu baax. taal caaxi permettre club am boobee di Empoli mu gagné par la marque de deux un kooku di AS Rome waaye yamaatuñ foofu li neex ci mbir bi mooy que bii boobu moo tax Empoli dootul wàccati ci Ligue de euh, italien muy série B bi mu doon loo xam ne nii c'est quelque chose d'exceptionnel nous sommes heureux tant que sénégalais en tant que africain que kooku di Mbaye Niang sunu joueur international sénégalais bi nga xam ne euh, gëj na équipe nationale Sénégal ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee ngeen ma ko ci commentaire yi en tout cas Italie ci sénégalais bi rek la ñuy wax Sénégal sénégalais bi sénégalais bi mii à permettre enquête yi mën naa ni euh, Empoli gagné euh, dem euh, foofee ca Serie A waaye yamaatuñu foofu gars yi Ligue 1 sénégalaise score boo xam ne nii tàmm ma di ko gis muy 7 buts à 2 jàmbaar lañ ko dóor de benn académie bi di ASC Dakar Sacré-Cœur moo ko dóor jàmbaar avant dernier match championnat Sénégal 26 et avant dernier match Euh, kookee di DC 7 buts à 2 moom la dóor kookee di jàmbaar jamono Fatick dóor 1 but à 0 Sport waaye génération foot Teungueth FC fekk si ko dóor ko 1 but à 0 Guédiawaye football club moo dóor kookee di US Gorée 1 but à 0 Stade de Mbour nul 0 bi partout mook AS Pikine Stade de Mbour nag war a jouer dernier match am mook TFC foofee ca Stade Ngalandou Diouf match bu nar a neex nar a yëngu tegu ci temps US Ouakam moo def euh, kookee di Jaraaf la dóor bi 0 kookee di Sonacos classement bi nag TFC moo jëm ci kaw jël na championnat bi ngeen xamee ko noonu TFC champion du Sénégal pour l' année 2023 2024 jël na ko deuxième fois malgré yàggul euh, ci championnat bi am 49 euh, points jël euh, première Jaraaf deuxième am 42 points DSC troisième am 40 points Guédiawaye Football Club jël quatrième am 39 points AS Pikine jël mu ngi noonu waaye ñi nekk ci zone relégable zone relégation bi mooy treizième bi Casa Sport 24 points waaye Dakar ak quatorzième vingt et un point actuellement ñaar ñoo ñoo positionné gum pour wàcc deuxième euh, division benn journée képp kundung moom moo ci des mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu Stade mbuur bu ko euh, kookee di TFC euh, gagné ba pare teg si ah ok ok Stade de Mbour Stade de Mbour Sport ak kookee di jàmbaar ñoom daal jamono ji ñooy xëccoo pour war a mën a mën naa ni génn ci zone bi même génération fut génération foot mais c' est vraiment non ñaari académie yi c' est triste pour eux maa ngi xaar la suite nu muy demee félicitations à vous les Rufisquois Tëngéej je suis de vous je suis un Rufisquois je suis un Kamafois je suis un Rufisquois je suis un Mbawois <laughs> yëpp laa boole mu ngi noonu en tout cas je suis fier d' être un Lébu et un Rufisquois à vous sama mbokk Lébu yi jàmm ci yéen ba beneen yoon.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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ euh, ne. du bu clean bu bees tàq la ko facture. non mais gars nag loo ngeen xaar pour ñëw ci sama nag fii moom lépp yaa ngi no quoi ñu dem ci deuxième question bi